ko ne ñu defal la fiche de poste ne la forage bi ngay yor saa bu ñëwee nañ la fa fekk saa bu ñu demee nañ la fa bàyyi lu ci xew nga mën koo signaler ñooñu 26 personnes yooyu biñ leen xoolee nit nag mënul yor 26 personnes ñuy en cent commune te awma ku leen benn ingénieur bu leen supporté nga xam ne moom bu demee ci forage bi dana xam lan lan moo sikk ci armoire bi wala lan moo sikk ci ci ci ci comptoir bi wala lan moo sikk ci cabine bi looloo tax ñoom ma recrité benn ingénieur hydraulicien moom it mu mu ànd ak OFOR ak Maa-u Rahmati di ñu ñuy superviser liggéey bi vingt-sept personnes yooyu ñu ngi ñu coûté vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt mille annuel année lañ leen defal un an lañ leen defal contrat kenn ku ci nekk ngir mu mën a amat yore liggéey bi ci biir loolu aussi bi ñu ko diagnostiqué ba pare def loolu ma ñu ne am na ay wenn loo ay groupe yoo xam ne ñi ngi ci forage yi te dañuy amuñu ay batterie loolu ci la ma sëñ Ousmane Cissé ma jënd leen vingt-six batterie jox ko